merci beaucoup. CFA bi. waxtu bi ah ñu jàmbaas ci CFA bi tëjee ko parce que monnaie bi moom. Mhm. dafa nekk loo xam ne yitteel na lool askanu senegal yi ci wax mais ni ngeen ko tëggee woon au début ba mu dugg ci biir projet bi par la suite bi ma dégloo Ousmane Sonko mu expliqué dafa mel ni ku ko jaar ci beneen anam boo xamante ni li mu gën a wër ak li mu gën a séntu. ba mhm. na def ba gën a regrouper yenn pays africains yi nga xamante ni jot nañu am. monnaie bi da ngeen dem ba jiiñ ko xam ne possibilité bi dafay jafe lool ngeen bëgg ko làqarti ci beneen anam wala ndax da ngeen jàpp ne faisabilité moo mënul nekk. non non non c'est juste que ne dafa am politiciens yoo xam ne dañu polluer le débat. lan mooy vrai débat bi kon. dafa am politiciens yoo xam ne c'est que Sénégal Sénégal sujet bi quand j'ai analysé ñuy wax. Mm. dañuy gis ñoo xam ne dañuy jël lu com lu complexe bu ko simplifier alors que monnaie c'est pas c'est pas c'est pas simple. la monnaie c'est complexe. dafa am une dimension sociologique am une dimension technique. am une dimension politique. d'accord technique bi moom laay wax poli moom laay wax économique. Mm-hmm. parce que dimension sociologique bi sax moo gën a garaaw. Mm-hmm. parce que une société humaine askan. Mm-hmm. ñaar ñoo ko gën a soxal. d'accord muy indo yi muy sénégalais yi muy ñu nekk Targanistan ak ñu société boo jël. ñaar moo leen soxal. d'accord seen kaaraange ak seen alal. nit nag li nga xamante ne nii sa alal sa xam-xam sa xereñte saa boo ko joxee ñu jox la ko nga nangu ko loolu da ko óolu mooy xaalis billet yi. c' mhm. est pas n' importe c' est pas confiance la laaj bu mhm. askan wi yëpp maase nañ ne man damay wat karaw te ku ma wat boo ma joxee mille francs ma jël mhm. c' est parce que wóolu naa mille bi journaliste la sama xarañte yi bu ma defee interview liggéey liggéey fin du mois sama expertise bi ñu ma koy jox ci ay billets may téye wóolu na confiance sociale boobu askan wi yëpp maase óolu benn mbir di ko di ci joxe seen alal moo jox kayit bi valeur sax moo jox ko c'est la confiance qui donne moo tax se dimension sociologique là ñiy jël monnaie di ko simplifier côté technique bi ñu ngi ci erreur ñu ngi occulter la dimension la plus fondamentale parce que askan pour alalam di ñoŋ fokk mu koy commercer d'accord te pour mu koy commercer il faut mu am billet bi te billet boobu fokk nit ñi óolu ko hmm. donc kóolute googu da nga koy créer c'est-à-dire que ñun monnaie bi nar a ñëw il faut mu am même kóolute gi CFA am naka lañ koy créer ba kóolute bi existe kóolute googu nag pour mu exister il faut nga monnaie bi balaa mu ñëw foog nga bâtir secteur primaire buy produire suffisamment ba sa pays am yenn résilience yi waaw en plus nga bâtir industrie boo xamante ne nii dem nga ba sa balance commerciale nekkatul déficitaire tey sa réew am na yenn autonomie yi am na yenn souveraineté yi. d'accord boo amee loolu nga bâtir nga commencé nag bâtir des entreprises yu nga xam ne dañu am puissance dem bëgg nga téye sa réew tout ce qui et souverain nga téye ko. laa nag booy def booy booy def changement. waaw di di def évoluer nit ñi dañuy xam ne réew mi dafa am ay assises am ba nga xamante ni lu ko yëngal. du du yomb boobu ngay mën a def transition bi ba noppi am sa monnaie bopp souveraineté monétaire bi ñuy wut. donc donc ku xam ku xam loolu yëpp parce que ñun xam nañ ko. parce que ñun ñoo ko ñun ñoo koy proposé ñun ñoo ne il euh, euh, xam nga wax naa aspect sociologique. aspect technique gu monnaie. technique techniquement monnaie moo lay permettre prix yi. ñu nga mun a maîtriser l'inflation c'est la c'est la gouvernance de la banque centrale ni banque centrale di di di di di joxe xaalis yomb na wala wala ni muy cheralee xaalis wala di ko yombal mooy le taux directeur loolu mooy déterminer euh, inflation bi parce que nit ñiy jënd bu xaalis yombee rek nit ñi dañuy consommer nit ñi bu ñuy consommer lu ëpp prix yi dañuy yokk d'accord donc te prix waay prix dafa fondamental ci économie maîtrise des prix parce que njëg yi buy yokk salaire wu euh, saawa ji day amet day day waaj day wàññi valeur bu doon moom cinq cent mille la am trois cent mille mooy dundam jékki-jékki dund gi passé à quatre cent mille moom il vient de perdre cent mille francs d'accord mais en perdant cent mille francs bu doon épargner cent léegi cent mille lay épargner banque ba vient de perdre cent mille francs de dépôt donc inflation dafa grave monnaie day permettre nga di ko maîtriser deuxièmement monnaie nga am sa monnaie bopp day tax bu sa économie soxlaa xaalis nga tëgg xaalis dugal ko ci économie bi. waaw am na ñu ko defoon si Covid bi. voilà mhm. donc monnaie mooy li nga xam ne genre oto bu amul essence que di nga def ci essence mu dem ba noppi monnaie mooy li nga xamante ne nii le coût du crédit. parce que crédit moo nekk ginnaaw économie. Mhm. banque bu nekk di day ñëw consommateur yi day ñëw leb entreprise yi ñëw leb banque bi soit day am xaalis lebal leen wala mu dem leb ci yenn banque lebal leen wala mu dem ci banque centrale mu lebal ko su amut ñee mënuñ koo lebal banque centrale moo koy sama day créer xaalis lebal ko. d'accord donc loolu yëpp mooy souveraineté donc boo xamee loolu yëpp. Mhm. souveraineté da ko soxla à mais nag c'est stratégique looy planifier la doo xëy xëy xëy rek def ko. mënul nekk ba noppi. monnaie ne c'est pas le plus important ci planification développement économique. d'accord mooy li mujj. monnaie la marché industrie productivité. da ngay produire d'abord pour nga mën a am usine. waaw soo amee usine di produire fa nga am marché. soo amee marché da nga am monnaie buy permettre les échanges loolu mooy logique bi. donc ñun musuñoo wax ne. Mhm. marché Sénégal rek moo ñu intéressé ñun dañoo bugg mus wax ne marché UEMOA euh, bi moo ñu gënal. donc ñun on a parce que nit ñi dañuy opposé. Mhm. souveraineté bu Sénégal ak beneen souveraineté bi. Mhm. alors que ne ñun on d' opposition à ça ñun dañ gëm ne war nañu mën a bokk ak ak plusieurs pays souveraineté bi am marché bu yaatu di produire di jaay xam nga sama ma ne buñ produire train jaay ko ñee ñee donc ñun logique boobu la ñu am. léegi nag. loolu on l'a toujours dit je pense que wax naa ko sa plateau euh, même daaw waxtaan nañ ci on l'a toujours expliqué mhm. dara dara changé wul mais bu ñuy def programme ah. on est obligé de dire économie def point franc CFA mais bind ko mu simple ça ne pas dire que dañ ko simplifier et que suba lañ koy def ah am na ñu ne moom yéen moom ni nga ko bëgg a defee moom mu ne moom bu moo tax ah. ma ne la polémique bi ñi ko inventé mooy ñi ko indi mooy ñi nga xam ne dañuy jël lu complexe bu ko simplifier ñii ñu jël lu nga xamante ne nii euh, programme expression programme la ñu bëgg ko politiser def ko débat pour wax rek lañ ci bëggoon wax rek lañ ci bëggoon mais gisoon aussi instauré na benn débat programmatique parce que. au moins. oui mais mais nañu wax si même Amadou Ba sax wax na si. voilà mais qu'ils aient nañu am président wax na nañu am honnêteté wax réellement ñun li ñu wax boo buggee poser un débat tu ne poses pas le débat de manière tronquée. xam nga ma wax. waaw boo ñëwee waxal ne bon Pastef dañuy proposer souveraineté monétaire parce que c'est des souverainistes. bañ dégloo Ousmane wax Balla wax tel wax wax gis nañ ne plan bii lañ am plan bii lañ am lii mooy seen priorité léegi nag sur la base de ce qu'on a dit réellement booy wu nga opposé wu mais bu ñu inventé lu ñu waxul ba noppi ne léegi yow da ngay opposé wu. <laughs> mais yéen naka ngeen ko mën naka matérialiser Ahmed nga baal ma. naka ngeen ko fas yéene yow matérialiser. ak ci àpp bi ak tamit ci démarche bi loolu yëpp naka ngeen ko fas yéene defee. gis nga euh, tey jii redresser suñu situation budgétaire. waay redresser suñu situation économique. def les grands les vrais fondements de moteur loolu yëpp rek ça va prendre un mandat. minimum cinq ans. ah oui je sais pas même au plus. d'accord donc par honnêteté on est obligé de l'écrire dans notre programme parce que on s'y inscrit mais nous savons très bien que ne ñun bëgguñu mun waruñu def monnaie bi dans six mois ou dans un an on ne va pas faire ça. d'autant plus que ñun suñu priorité mooy nañu créer une diplomatie avec la sous-région wow. pour amener les gens tout de suite ñu créer monnaie commune mmh. au niveau d'un espace parce que espace bi lañ gën a soxla ko monnaie bi d'accord donc ñun loolu mooy suñu gëm-gëm léegi nag ku ñuy critiquer amal honnêteté nga waxal ñu li ñu wax ma seet ndax di nga am fitu opposé wu ci mais dafa yomb trop nga bëgg a défendre les intérêts français ba noppi nga bëgg ñoo waxal lu ñu waxul parce que en réalité dafa ñoo xam ne ils sont plus français que Hmm. boo xoolee ñu ci wax ñëpp français la ñu gën a ndirool tey jii bu gisee seen Sénégal doon xeex ak France France ngay wax wala man daal dama man daal sama gejj laa weer ku ku non en fait non moom moo critiqué ci candidat yi moo ci wax ouvertement ñi critiqué bëri mais man daal li ma wax mooy am na ñu nga xam ne intérêt France moo leen kenn du laal intérêt France mais si on veut poser le débat nañu poser le débat bi d'un point de vue purement technique d'un point de de la planification ak nañ ñu waxal ñun li ñu wax lan mooy sa lan mooy sa réponse catégoriquement ci Khalifa Babacar Sall parce qu'il a parlé des questions de réserve ak yeneen ak yeneen parce que puiser ko il faut nga am à la base loo xamante ni lu solide moom lay doon pour nga mën a construire loo xamante ni une monnaie lay doon lan moo ci nekk sa réponse catégorique vis vis de Khalifa Babacar Sall et de la manière il a critiqué moom lan mooy point de vue am Khalifa dafa mus a wax souveraineté monétaire da ko mus a da ko mus a xam ne dañ ko théoriser wax ko waxati ko c'est pas lui qui mène le débat je suis désolé man du may wax ci ma ne wax par rapport ak Khalifa Sall musu ko défendre musu ko wax il l'a soulevé juste pour créer polémique moom ak Abdoul Mbaye xam waxante dëgg donc c'est du fi nekk di leen répondre musuñ koo porté gëmuñu ko ñun liñ ci wax dafa musa leer amul polémique nañu na nit ñi attaqué li ñu wax ñun dañ ne bu ñu ñëwee on va mettre en place une stratégie avec les pays africains pour am marché avec notre propre monnaie gérer suñu gouvernance bu ñu dawalee 6 ans 7 ans 10 ans gis ne ñii kat fasu ñoo yéene def ko en attendant ñu ngi doon travailler ñun suñu économie pour mhm. am suñu monnaie bopp ñun stratégie boobu lañ mës a teg stratégie à deux têtes mais la priorité c'est le marché ak monnaie bi mais bu ñu toogee 10 ans ñii nanguwuñoo avancer on aura suffisamment de temps ñun pour travailler suñu économie am inverser balance commerciale bi atteindre yenn niveau de production secteur privé am yenn industrie ba mu leer ne tey bu ñu amoon suñu propre monnaie comme Bangi comme Mauritanie dinañ ko gérer noo xam ne mooy gën ñoom boobaa mu amuñu choix il va falloir que ñu am suñu souveraineté souveraineté lu mënta ñàkk la mais am na nu am na nu mu gëne ni mu gëne mooy ñu bokk ak réew réew réew yu bëri mais sur dix ans mënta ñàkk du lu ñuy xëy nag rek def ko tey parce que ñoom débat bi yëpp dañu bëgg gëmloo ne ñun on est des aventuriers mm-hmm. xamuñ li ñuy def buñ ñëwee suba rek dañuy andi mën a bi foofu la saa la bëgg andi wax ñun danoo musta wax loolu donc su buggee en débat sérieux nañu waxal li ñu wax ba noppi mu contre li ñu wax ñu mu xool ndax dina am argument du ko am ok merci beaucoup Babacar. Euh, l'aspect géopolitique laa ci bëggoon yokk mais waxtu bi moo ñu. moo xaw a xoj laataa may jox euh, gars yi ñu euh, ñu daal di tàggatoo ma dem rek nuyuwaat suñu partenaires yi nga xam ne ñoo ñu doon gunge ci émission bu mag bi la di di Mbegte koor ku ci mel ni Tima délistrateur sànq ba léegi maa ngi koy wax yu baax yi ngeen xam ne moom la gars yi jëfandikoo moom moo ko fi daal di indi nekk fële ca Wakaam rond point Y numéro téléphone am mën ngeen ko noté pour def seen i commande ñu

Euh, moom mooy hôtel euh, Al Afifa mi nga xamante ne nii moom ñoo ñu euh, gunge jox leen bon yu am solo yi nga xam ne mën ngeen ko gagné man ngeen dem def seen i commentaire surtout su suñu page yi lu ci mel ni Instagram ak Facebook bu ngeen demee foofu bon yi ñu ngi fa mën ngeen def partage yu vidéo bi ngeen ko fekk muy maye bon yi ngeen tagge ci seen ñaari xarit demain incha allah Maymuna avec tout l' équipe digitale dinañ ñu indil résultat yi ñu daal di joxe. Euh, bon yi euh, di gërëm aussi waa Casamance mi nga xam ne moom mooy ndox mu sell woyof te wér te wóor euh, di leen gunge ci weeru koor bi di leen hydraté waat bu baax a baax lu ngeen ci naan doyul ndax dafa baax ci wér-gu-yaram baax ci li nga xamante ne nii moom mooy moom mooy koor ku ko xëddee sax doo xiif Casamance boo ko xëddee nii 10 litres bi nga naan sàcc naan ko boo ko xëddee doo xiif merci beaucoup waa Grand Théâtre ñoom aussi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mais man aussi ki ma ki ma def nii ba ma mel nii ma ngeen man maa xool te du ngeen am gàcce bële bii nga ma diggoo man xool te du ah, bu ñu ma xoolee duñu rus samay soppe ko <laughs> samay soppe bu ñu ma xoolee duñu am benn gàcce kër Rasoul Couture ñoom ñoo fi jaar nekk fële ca jam ñaajo euh, derrière hôpital Elisabeth Diouf 77 500 77 535 42 88 di gërëm madame Dembélé ak toute l'équipe donc kër Rasoul Couture euh, nekk fële ca jam ñaajo euh, ñoo def lii quoi ñoom ñoo def lii ñoom ñoo mel nii daal ñoom ñoo dàq ñoo gars yi xale yu mën a ñëw ñoo fa nekk agence sénégalaise d'études espace spatiale euh, ñoom tamit bokkoon nañ ci ñu ñu gunge di agence boo xamante ne nii seen liggéey am na solo euh, te te mucc ay soxna si maa ngi lay gërëm di la sant yow it jërëjëf Ameth bu suba incha allah ba ëllëg ak beneenu candidat. incha allah jërëjëf jaajëfal naa la bu baax a baax. Mouhamed jàllo kontaan naa ci bokkaan ak yow jotaay bi ñaari Mouhamed yi ñoo sekkoon Balla Moussa. <laughs> jërëjëf Ameth plaisir partagé kon bu suba incha allah. ayca merci beaucoup Babacar ba ëllëg da ñëw indi beneen gan wala. wala classement bi ngay xaar suba suba maître El Hadj Diouf mooy ñëw yi nañ ko wax te yàlla rek tax. bu bokkoon ñàkk a nekkum candidat moo wàññi xorom